message bi nga xam ne nag maa ngi koy jotli ndaw yi rawatina fii jamono toll nañ xam ne àdduna suñ borom bind ko ngir mu jàkk dana tane nag waaye bëgg àdduna wala bëgg teraangay àdduna wuta jaral kenn muy xaru wala mu jaay bakkanam phénomène bi xew léegi nga xam ne bis bu set nga dégg ñoon ay dizaine de personnes wala ay centaine de personnes ñi ngi dee di mbëkk ci gaal yi nañ xam ne loolu xaru la te ab jullit saa bu xaroo rey bakkanam te tey ko boo ëllëgee ba dee suñu borom dana ko layante wa man xatala muminan mutaammidan fa jasaawu jahannam la ñu wax wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jasaawu jahannam képp ku rey bakkan bakkan nag moo xam sa bos la moo xam bosu jàmbur la waaye saa boo ko reyee te yàlla reyu ko yaa ko sabab nee na bu ëllëgee sa fay mooy sawara nañ gëm yàlla te gëm yonent bi te nangoo liggéey te lu waaye am mu doy la waaye bu wurte jaral kenn muy kii loolu nag li ko mën a indiwaat mooy tënkuwaat ci ak jub waaye tënkuwaat ci diine lislaam ndax lislaam prévoir na lépp képp koo xam ne fës ngaa yéene jiitu atteb suñu borom da nga xam ne da ngay sonn rek ndax alxuraan da wax ne wa isa isa jaa ajulaha laa yastaaxiruun saata wala yastaqdimuun fa isa jaa ajuluhum fa laa yastaaxiruun saata wala nee na ab dikk saa boo xamee ne egsi na nee na du jiitu benn saa waaye du du du moy benn saa du retard maanaam du avancé du retard kon nañ gëm yàlla bu baax a baax te góor lu baax a baax